sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di jiital ci nuyoo bi sañ Cheikh lajoor mi bu sëñ xaadim awa ba di sama xarit di nit baax di sant yéen ñëpp sëñ xaadim di kontaan lool maam Thierno ci seen teewaay yow ak sëñ Moussa am nañ contentement bu baax a baax a baax a baax ci fekk gi ngeen ñu fekk fii ci di kër sëñ fàllu di sama kër di ñaan suñu boroom ñu yàgg koo teewee ci bisu Cheikh Mouhamadou Fadal bi ku ne xam na jamono ji ni mu demee moo tax mu demee nii ndax kenn bëggut a xëtt ndigal te kenn bëggut bu ñuy juum ci loo xam ne sëñ bi da koo santaane bu ñu ca fekkee ca loo xam ne sëñ bi koo santaane nga gis ca safaan ba bëgguñu ko ñu fa fekk benn yoon waaye ku daan ñëw fii màggal ñëw fi tey di nga xam ne ndigal rek la ñuy jëfee waaye nag sant yàlla bu baax a baax di ñaan balaa di wen mbas mi nga xam ne moo fi nekk la jël nit ñi ba tax lii mu demee nii yàlla yàlla def mu jóge fii ci barki Cheikh Mouhamadou Fadal kontaan nañ bu baax a baax a baax ñi teew ak ñi am yéene teew kontaan nañ ñaani rek moo ëpp solo te def nañ ko wàcc nañ ay kaamil bi ñu xëyee fan yëpp ñu ngi koy def bi weer bi teroog léegi sant nañ bu baax a baax a baax a baax kontaan ci seen teewaay di rafetlu seen liggéey yéen tamit maam Thierno di ñaan yàlla seen sit bi yàlla yóbbu ko ca kaw kawe kawe ba ñu koy dégg fépp ci àddina bi kontaan nañ bu baax a baax waaw Cheikh Mouhamadou Fadal moom li ma gën a marqué ci moom mooy ay jikkoom te nit liñ koy nawee mooy jikko te jikkoom yooyu moom a gën a marqué ci moom moom la moom a gën a neex moo tax ma gën koo bëgg même bu doon toon sama maam it xam naa ne ci première soppeem yi laay bokk di ñaan yàlla jéem a roy ci ay jikkoom rek yàlla xiir ñu ci ban ban koo roy tamit kontaan naa trop ci seen ñëw yéen tamit. jërëjëf sëriñ bi noo ngi am mbegte bu baax di teew fii ci kër. soxna Astou moom Cheikh Abdoul Fatah moom Cheikh Mahamadul Fadil ci bis bu am solo bii nga xam ne it euh, li ko waral weesu wut fàttaliku kenn ci euh, pay wala may yi nga xam ne sunu borom daf ko defal sëriñ Touba muy Cheikh Mahamadul Fadil nga xam ne dama naan rek xasanatun min xasanaati Cheikh Ahmadul Xadim la loolu it bu bis bi ñëwee it li yonent bi ne woon am na ci bisi sunu boroom yi bis yoo xam ne sunu borom day wàccee ay xéewalam na ngeen ci góor góorgóorlu ba am ci xewal yooyu bis bii da cee bokk ndax eh, dafa dajale lu baree baree bari ndax guddig biig yu baree bari ci ay ngëneel yoo xam ne sunu borom defal na ko yonante bi sallallahu alayhi wasallam waaye nu am ci jagle sunu borom baaxee nu kii nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadul Fadil mi nam ko doon waxee ne dane dane lay mën a cëpp nga xam ne kon moom bu ñëwee it yor tur woowu di turu wii gën ci tuur yi ndax yonante bi nee woon na tuur yi gën ci tur yi mooy maa obida aw maa kon nag yàlla defal ko loolu ba noppi muy borom ngëneel ni ko suñu boroom tuddee muy koo xam ne it euh, bis yu mel nii bu jotee danañ ci profité ñaan suñu borom mu mu defal nu xéewal dàqal nu njàqare dàqal nu it jafe-jafe jamono ndax moom euh, chaar la woon ci loolu ndax euh, na mu ko doon waxee rek ba mu ñëwee dara sëpp jiba muut koll dadd loolu xam boo koy boo koy tënk rek man nga ne rek maanaam ay xéewal yoo xam ne sunu borom daf ko fi dañu koy indil ba noppi jëlee fi ay jafe-jafe loolu nag dañ koy ñaan sunu borom mu defal ñu ko ci barkeb borom bés bii ak it jéem a fàttaliku mooy kan buñ fàttalikoo mooy kan jé jéem a jaar ca yoonoom jaaroon te it euh, mën nga caa tënk rek koo xam ne am na ku ko ku ko décrire ci ñetti baat rek <coughs> ku ñuy wax euh, Serigne Thierno Fall di ko jege woon. mu ne Cheikh Mahamadul Fadil am na jikko yum boole yoo xam ne sunu borom daf ko koo defal moom rek muy koo xam ne day xam say ayib ba xam ci yow loo xamul ci sa bopp mu nëbbal la ko te tooñ koo ko tooñ lu mu rëy rëy man na ko man man mën na la koo jéggal di jëflanteeg yow noo xam ne day mel ne mosoo koo tooñ batt naa ñettal ba waaye li am solo rek mooy ñu xam ne daal koo xam ne tànneef la defarub Sëriñ Tuubaa la te li ko fi indi woon mooy la mu waxoon ne xaj bon bon yi ak xajoo ban ban yi kon loolu nag ñun ñëpp war nañ ko cee roy rawatina koo xam ne kilifa nga jiite mbooloo jéem koo roy ci loolu rek te xam ne mbooloo moom bala nga leen a mën a mën a mën a mën a mën a saytu faaw nga jéem a xajoo seeni bon bon tey xajoo tamit seeni ban bang mm-hmm. waaw ngëneel it moom boo ca bëggee lu gën a yaatu boo xoolee masaalikul jinaan sëriñ bi indi na ci lu bari wax na ca ngëneel yi bokk na ci weeru weer wi nga xam ne ku ko man mën ngaa woor lépp ba mu jeex soo ko mënut it am na ci bis yoo xam ne yuñ taamu la lu mel ne bisub tey bii wala lu mel ne guddi tey gi it nga def ci jaamu yàlla yoo xam ne da nga koy def sa diggante ak sa borom ak it yonant bi daan na ci wax ay ngëneel yoo xam ne day wane ne weeru rajab daal weeram la woo xam ne suñu borom moo ko jagleel ku ko man tamit nga bari loo ci woor di ci sàkk sarax di ci def lu baax dana tax suñu borom gaaw nangu sa sa sa jaamu yàlla kon weeru ngëneel la weeru ngëneel woowu nag ci la na suñu borom jox suñu jàmbaar ji nga xam ne ku nekk gis na li mu def ci yoon wi ci ni mu ko yokkee ni mu wuutoo sëriñ bi doon sëriñ Touba te it euh, daan muy ki nga xam ne dafa def lu baree baree baree bari ci jeexit joo xam ne mi ngi am ci xol yi ci suñu digganteeg sëñ Touba. loolu it eh, ku ne xamal xam xam na xam na xamal na ko sunu jàmbaar ji Cheikh Mouhamadul Fadil di ñaan sunu borom muy defal ñu xéewal ak barke dindi jafe-jafe yi ci jamono ak tawat jeeg lépp ci barkeem nu yàgg fee ñëw yàgg fee fekk sëtam bi ak njabootam gépp salaamaaleykum wa rahmatullah